ñu boo ko jëfee waa Jamra ngi may dégg toute affaire cessante dinañu mobiliser toutes nos structure des quatorze régions ñu jàppale la ñu criminaliser góor jigéen. boo defee wax waxeet nag nous allons te combattre. si bilee xeex nag ONG Jamra dafa fas yéene tekki kàddu Jean-Luc Mélenchon si wolof waaye itam si arab ngir rek sénégalais yépp mën cee jot. fas yéene nañ itam organiser ab tournée ci biir réew mi ngir rek gën a yeeti askan wi lu jëm ci mbir mi